ci fi ñuy waxe foofu mooy mimbaru réew mi nga tudd jabaru jàmbur nga ni diw muy jigéen nga am yaay ma am yaay nga am doom ma am doom mu taxaw ne diw ëmbul wala bu ëmbee jëkkëram ëmbul ko ça c'est grave chauffeur am moo ko ëmbal daa des ab simple chauffeur am moo ko ëmbal waxul simple chauffeur am la wax waaw am loolu ba nga jàmbur xëy na am na preuve yi. non man mais mais man man wax dëgg ba jox preuve man. waaw même peut être chauffeur boobu muy wax. même même même la may gën a may gën a. dafa ne Barth ma ko wax waaw may ma may gën a grand. may ma may gën a moto may ma may eggale. waaw man mi ko wax. may ma may eggale grand may ma may eggale moto. xam nga loo xam ne moom moo ko wax li ma c'est sérieux. waaw jamono jàpp nga wax loolu. j'ai une information aujourd'hui. Mais Birimo, pour, tu, ne peux, pas, non, tu ne peux pas l'attaquer pour propos de base. non, je, la coalition. Non, j'attaque la coalition des députés de l'opposition. Tu ne peux pas l'attaquer pour des propos dont il n'est pas responsable. Ah mais là ça devient personnel. non mënul. moom mënul mënul. je parle des députés de l'opposition y compris Makhmoud Diagne. bon dama ne cette affaire ne doit pas être. information nga ni nga ciy complété. dama ni. waaw pour pour votre information. waaw waaw chauffeur boobu ngeen di wax. mooy jëkkëram. oh non. c'est son mari. kon xam na lu kon xam na lu muy wax. non déet. man xaw ma yow yaa xam. je pèse bien mes mots. man xaw ma xam nga. ndax lii non wa tubaab. tele laay wax maa ngi toog. non kii dafa ne. non mais mais garaaw yow na nga intersoké daal moo xam ne may wax. man tele laay waxee te maa ngi toog. daan jox toutes les preuves ah. mais dama ne waaw dama ne man maa ngi toog. non mais mais mais ce débat ne concerne pas le peuple. waaw soxla ci preuve rek dama ne on on on violente des femmes. c'est des choses on offense des femmes dans cette république. des présidents gën a ne concerne pas le peuple. non non non waxuma. on violente des femmes mariées. on détruit les femmes mariées. vous n'avez pas toutes les informations. waaw vous donnez toutes les informations man li ma toog dama ni man li ma toog li samay nopp di ñu ma bëlee man nag laa naa ko mën a expliquer rek li ma toog yor samay ko la yokku ma ci wàññi ma ci Barthélémy moo wax ni mhm. ndaw si ngeen wax dafa ëmb ëmbul mhm. je dis mot à mot wax ah. te bu dee même dafa ëmb jëkkëram ëmbalu ko yéen ngi toog yi ñëpp mhm. il paraît que un chauffeur moo ko ëmbal lii Barthélémy Dias ba wala wax kenn mu wedd lool moo ko wax ma ni ko loolu kenn wax jigéen ci kaw suuf te boo xam ne chauffeur boobu ngeen dox c'est son mari kon xoolal gravité wax boobu nit du offensé jabaru jàmm kuñ ko fi waxoon sa jabar fii mu nekk député yokk nga toog vidéo yi nga resté say doom jamaa ngi di ko gis mais c'est pas dañ leen dégg yéen ñaar respecté les chers députés chers députés respectez les femmes respectez la pop la population. respectez nous. am na information s'il te plaît respectez nous. des informations su ma la ko joxee. waaw di nga tëj sa gémmiñ billaahi